senegal dëkk bu metti la bo waxe ñu ne dafa dëgër bo waxe ñu ne wax ji neexul ñi nga xam tank ki yor bant ki yor yet gi tank mu yor yetam di dóore fi ñu toog duñ fu duñ fa bu bouger duñ wax de waye ki ñi dóor bu fiqato rek ñi ne ñu fit naa ngi ni may wax yeen jeunesse senegal bu leen déglu ñooñu yeen intellectuel Sénégal yi bu leen déglu ñooñu yéen transporteur yi commerçant yi yéen Euh, diaspora yeen keneen ak keneen bu ngeen déglu ñooñu parce que réew mu mos a baax rek dafa am génération bu jël responsabilité bi foo dégg ñu ne révolution dafa am ñu jël seen responsabilité nee nañu dafa dem 21 heures naam dem naa fa 21 heures parce que li ma yëg ci sama yaram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 ñëw naa fekk naa fa ay nit nuyoo naa comme ni ma ko daan defee. maa ngi wér gu yaram gu mat sëkk canceru ma ah ci lu ma yëgul jabetuma ma aw ma insuffisance aw ma benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah. yàlla daf ma nattu ba may nekk gone ba fii ma toll nii. ma ànd ak ay jàngoro yoo xam ne dafa laaj faju ñàkk fulla ci sa surtout am ndaw nga xam ne société bi soxla na la mais pas ci xeex xulo soxna la pour la construction de la nation say waajur soxla nañ la jur nañ la yar la toppatoo la ba nga toll ni nga toll ñu yaakaar nga war leen mën a dimbali yow amoo benn fulla sa bopp lu dul benn politicien boo xam ne ci jamono ji lay yónni pour nga xeexal ko nga leen di rey sa bopp ci loolu ñooñu lañu war a waxal tey man awma je n'ai rien à dire aux politiciens yi sikk nañu ba noppi munoo dara ci ñoom mais jeunes yi leen topp au nom de quoi et pourquoi di génne ay jaasi di tëb di dal ci loo xam ne politique du loolu politique débat d'idée la ku nekk na ñëw ak programme am ku nekk na yow ne askan wi lii mooy sama mbëbët ci askan wi ku nekk toog déglu parce que yàlla may na ñëpp xel seet li la gënal bésu vote nga dem vote dem ñibbi. loolu lan la ci ay xeex ak kii. témoigner d'aucune faiblesse nous devons tous faire montre de la même détermination que sinon plus chers amis nous ne sommes plus au temps des révoltes de salon comme je l'ai dit soyez mobilisés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

à part da ngay wax naan da nga nekk quand même. bi lan la. menu bi am na bu mi mille. am na bu cinq mille. deux mille bi ngay ngay ngay ngay. waaw mooy tolloog moom. ma tooñ. dégg nga loolu may xeebee jox ma ci catégorie yu mag ci wuraan jàng contemporain yi laa bëgg nga jox ma jox ma ci yu dix mille yi cinq mille. ñu may ko loo may xeebee laa ñeme. mais pas lu la da ngeen di jaay jox ma ko dix mille mbaa bu cinq mille. alors ah. léegi xaaral ma ñëw ah. ah. ah ma wuy ma wuy ma. kii kenn du fi ñëw bëccëg yu mel nii ma yëg sama yaram maa ko xam damaa a ma yëg sama yaram yu man rek ma ko mukk mukk lëkkale ma ak ñoom rek ma defanteeg ñoom ba mu waaw damay ba mun nga ñu mun nga ñu. Eh, audience laa bëgg a ñaan président de la république kër <laughs> yu mel nii dañ leen di tëj te <laughs> li ma yéeg ci sama yaram ba xam ni war naa dem defi sama séance de massage man maa ko xam nee nañ leen système bi xeetu saay-saay bu ne ma nga ca bu leen jàpp rek ni saay-saayu politiciens yi la saay-saay bu mbubboo diine mi ngi ci dégg ngeen barki démb kenn kuy wooye wooye boppam kilifa diine nga xam ne peut-être ñi fi gën a jeune du xam histoire am waaye ma leen ni moo fi créé woon parti bu tudd Hizbullah ne day jël nguur gi par force imposé diine ba Senghor tëj ko kaso mooy koo xam ne su demee Iran ne leen chiite la mbëkk leen ñu jox ko ay milliards mu daw bu demee Arabie Saoudite ne leen wahhabite la mbëkk leen ay milliards ñu jox ko xaalis mu daw bu demee ci xadafi ne ko yow sëtu yonent ka man sëtu yonent la mbëkk fa ay milliards daal di ñëw toog mooy koo xam ne lu musa nekk complot ci Afrique ak lu mus a nekk complot ci Sénégal loxoom a nga ca. seen doom seen xarit seen collaborateur ci politique ngeen bokk gis-gis bokk idéologie euh, tàllal na loxo pour ñu mën a wëyal waxtaan bi mën a collaborer dans l'intérêt boo demee boo demee ci te ci ci livre bi Abdou Diouf bind mu ngi fay nettali bi mu demee Niger di fa def yëfu saay-saay ba ñu jàpp ko fa torturé nañ ko fa lakk nañ fa ay affaire am ñooñu tey benn échantillon rek ci mbir mi ñooñu tey ngeen di dégg ñu yor seen làmmeñ di mbël-mbël yi parce que dañoo njortu ni seeni intérêt barki démboo njaay rek lañ ma indil ay kayitam fii Lac Rose rek 2011 ndax na fi Ablaye ba mu jox ko 165 hectares 1 million 650 mille mètres carrés ñi fi nekk ñëpp mënoon nañ ci am kër. teguwul ci dara lu dul njuuj njaaj ak maguy parce que du ci mérite. wax dafa am ñeenti tànk yow mi wax yal na fekk yaa war a wax la ngay wax it yal na fekk muy la nga war a wax fa nga koy waxee yal nay palaasam ña nga koy waxal yal na ñuy borom wax ja lu ci manqué noppil te julit du fena ah, julit dana jikkoo jikko bu nek ba mu fet illa al kadiba julit du fen julit du war motax yalla ñu yàlla jàppale dit que c'était un complot d'État parce qu'il n'a jamais été question de viol il ne sera jamais question de viol me concernant. Lorsque tous ces éléments-là sont réunis, établissant un complot jusqu'au plus haut sommet de l'État. Pensez-vous que quand tous ces éléments-là sont réunis, établissant un complot jusqu'au plus haut sommet de l'État, pensez-vous que quand What? guys. jëkkër briquet almet es un tal briquet almet es essence stal briquet almet es essence stal briquet almet un essence Col es këyit es essence briquet almet es essence briquet almet es essence briquet almet Paint is een star. Brieke, Elmer, Jung. Fipu, Fipu, Fipu Farantelo. Fipu, Fipu, Fipu Farantelo. Fipu, Fipu, Fipu Farantelo. Fipu, Fipu, Fipu Farantelo. Fipu, Fipu, Fipu Farantelo. Brieke, is een star. Brieke, Elmer, is een star. Brieke, Elmer, is een star. Fipu, Fipu. Fico farecão, fico, fico, fico farecão. Fire, fico, fico, fico farecão, fico, fico, fico farecão. Jorra saracão, tule tule maqui, levo baracão. Fico, fico, fico farecão, fico, fico, fico farecão. Jorra saracão. takku tulli makki lépp barakala briquet almet essence taal briquet almet essence taal briquet almet oto taal briquet almet wër seen kër yi taal fippu fippu fippu farakala fippu fippu fippu farakala fippu fippu fippu farakala fippu فيكم فيكم فارا جلابي أنا فيكم فيكم فيكم فيكم فارا جلابي Yes, I feel Faratala, guys. Yeah. Sound yaa ngi ñëw guys. Be ready, be ready. Fippu Faratala. Briquet, almet, essence. Taal. Briquet, almet, essence. you know briquet almet oto taal briquet almet wër seen kër taal yee xëpp essence taal loolu la sandu tudd xëpp essence taal ñu ngi ñëw nag gars bu ready on est en révolution du problème dinañu dem dinañ leen yóbbaale yéen kii di Antoine John kii di Macky Sall kii di defkatu fi, yi di nañu dem nañ leen yobale. notre plan est bien dessiné te du leen baye ginnaw. bu ma leen ko waxee rek gëm leen du ben xalé bo leen di japp, du ben téléphone bo leen japp fofu. le plan n'est pas dans ces téléphones le plan n'est pas avec ses enfants le plan est déjà dessiné yéen di ngeen ñak sen bakkan yow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

nitu fitna la yolom nitu fitna la nitu fitna la yolom nitu fitna la yolom mën na fen mën na soos na jaxase sa temps kacca mooy féewale nitu fitna la yolom nitu fitna la nitu fitna la yolom nitu fitna la laal jabaru jàmbur yàq xale yu jigéen ñi ngemb ay ndawaam ñuy saaga kër diine yi sama clash xajul ci yow yàgg naa la avertir sama tànk dafa diis at non samay tiir fekk gaynde muy nelaw yaa ko yee amul daw doomu njaalo waru lu réew si mim réew loo fi jaay dina lamba ni caaya yamba yolom gaño amoo yar amoo teggin yolom gaño xamoo lu may indiscipline yolom gaño mooy maa tey lu ma neex def sos fen kàcc subax ngoon loolu ngay def yoloom gaño banexu bakkanam jaral nako tay le lidi lii askanam joxul cheur kilifa aada faalewul kilifa dine leuf jaral nako jeunesse bi yep de alla boni yorom gagnon lo bokk seitané manipuler jaxassé ndekete feni kessé nitu fitna la yolom nitu fitna la nitu fitna la yolom nitu fitna la yolom mën na fen mën na soos mën na jaxase sa temps kacca pan naam mooy féewale nitu fitna la yolom nitu fitna la nitu fitna la yolom nitu fitna la laal jabaru jàmbur yàq xale yu ji aha bismillah voilà donc frère est-ce que mën nga ñoo expliquer exactement li nga xam ne moom moo xew foofu ci kaw Kaolack sant wi maa ngi sant samay ñaari waajur ñu ngi sant bu baax Serigne Touba. en fait ñun suñu kër dañoo tëdd di nelaw ñu wërale suñu kër lépp ay pneu presque doo pour quinze pneu def si essence taal suñu kër. léegi est-ce que. Mm-hmm. waaw vas-y vas-y ma bàyyi la nga expliquer yépp ni mu xewe ni mu ni li xew. Euh, bi ñëwee taal suñu kër ay dëkkoon. taal mu yëg si kaw ñu daal di génn gis ñu rangale kër gi ñu daal di couper courant bi. bi coupé courant bi ma jéem a xool nu ñu euh, rawalee xale yu ndaw yi ndax présentement ay xale yu am un an ak deux ans ñu ngi si biir ay xale yu raam ak kenn ku am asthmatique jamono jii mi ngi si euh, circonstance yu méttee ku ñu koy rawale pour yóbbu ko hôpital métti na trop fa trop ba métti yem ñun jamono yii passé ñu ngi def ay menaces de mort lii c'est pas du tout normal dëkk bu mel nii dëkk de droit ñu def nii ba ma ko ñëwee ba ñu lakkee on a sapeur sapeur ñëw na

pour man agent Senelec yi wala agent Sonatel yi chaque jour mi ngi taxaw suñu kër si di photo oto bi nag administration AD lañ si bind oto bi AD lañ si bind mu jàkkaarloo suñu kër day photo di dem di photo di dem ñun na xamuñ lan la xam fekk oto bu taxaw nga dem di ko laaj lan la. donc da nii instant bi ñun jaaxle nañ jaaxle nañ kër ku tëdd sama yaay dafa génn sama papa dafa jaaxle man rek maa fi nekk si góor. voilà donc nga def fani yeb dafa am auto administration bo xamne dafa taxaw sen buntu di photographier kër gi. allo mang yang may deg sëñ bi mangi ngi yang may deg donc buñu comprendre bien fani yeb nga ne dafa am auto administration bo xamne dafa taxaw sen buntu di filmer kër gi di kofoto. photo. en face buntu en face buntu photo pour man comme suñ ko dafa am antenne ma yaakar ne dañu am lu soxla ak yoyu bima ñëwé légui même pas 2 heures de temps man légui la tëdd si laa ñëw fekk amna auto auto bo may wax non auto yoyu auto taxaw na ak ay élément euh, mais xam nga auto bu taxaw ne mëno ñëw nako lu muy def dama tuk ci bir kër gi ay 2 heures du matin ñu taal kër gi yu fess del ak ay pono rangale ko taal essence ba kër gi présentement amuñu courant amuñ fu xalé yi tëdd ñi leen di rawalé pour ñu kenn ñu li Mor di wax concerné wu ñu moom la concerné li Mor di wax concerné wu ñun moom la concerné ñu ngi nekk si pays de droit am nañ droit wax moom moom am na droit wax ñun suñu kër ñoo moom am nañ droit préserver suñu kër suñu yoon newul si li muy wax bëgg nga ñëw di taal si kër jàmbur. léegi li ma bëgg a laaj aussi est-ce que yéen jot ngeen ay menaces. jot naa menace man sama bopp ki xam ne moo menacé benn numéro privé woo na sama yaay. directement ne ko maire mu ne ko ah mu ne ko yow yaay rak yaayu Mollah Morgun mu ne ko waaw mu ne ko boo waxul sa doom mu bàyyi lii danañ la rey carrément dinañ la rey je pèse bien mes mots sama yaay jamono yooyu dafa tëdd feebar ma woo ko ne ko yaay lan la mu ne ma dañ maa def menace de mort si laa demee gendarmerie dem bindi plainte waa gendarmerie na ma Euh, euh, dafay bind plainte ba bind plainte avisé ko directement commandant brigade gendarmerie bu recherche si la defee ba mu dem bind def réquisition waaju gaaw waaju am passif tamit maa ngi koy bu baax bi ma ko déposé tey si suba sa def na réquisition Sonatel ba Sonatel génne ko numéro privé bi ko ko génneelee numéro privé boobu génnaat na ko numéro yi nga xam ne moom moo ko woo depuis loolu am na benn numéro bu xam ne extérieur la ne mi may woo di ma message naan ma boo paree mën nañ la file xaalis ngeen baa affaire mu sedd ñun dañ doon c'est juste que bu doon napp sa yaay pour moo laa noppi ndax moo laa daf ñoo sonal waa si boppam nee na ma toog naa ak waa ji nee na ma toog naa ak ministre de l'intérieur je pèse bien mes mots waa ji nee na ma toog na ay ministre de l'intérieur muy jooy ne moo laa da ay saaga

jéem a toog pour fanaan si kër gi ndax rawale naa njaboot gi ñu génn kër gi mel man maa ne si kër gi présentement nii. léegi police bi ñu ñëwee lu ñu wax est-ce que def nañu benn genre plainte est-ce que jéem nañu laa laaj lan moo xew ak kan moo ko def. police bi ñu ñëwee laaj na ma laaj na ma noo tudd moo ko nu mu tudd noo sant moo ko nu ma sant mu ne ma comme bi da ngeen fee am benn problème ak dëkkandoo yi ma ne ko bu grand mu ne ah ma ne ko loolu boo doon amoon nañ benn problème ak yi doo fekk kër gi nii. kër gi peur fayu ko peur avant muy ñëw dëkkandoo yi ku ne indi nga sa ndox ak sa suuf ñëw fay kër gi amuñ benn problème ak dëkkandoo mu ne ma waa baax na inshallah allah danañ laaj ay dëkkandoo parent bi ñun demee amoo leen benn problème ak kenn ma ne ko sa waay ñun amul problème ak kenn kii mooy sama papa man bàyyi doomam man rek maa fi ne ak suñu jabar amuñ problème ak kenn jote wu ñëw kenn problème loolu la ma laaj bind joxo jël leen numéro téléphone am jox ma dem yoonam. yow ban relation yow yow ban relation nga am ak Mola. Faye. yow grand frère am nga. petit frère am la. ok yow petit frère u Mollah nga. petit frère am la. ok est-ce que man nga wax. maa présentement si kër gi. ok famille bi ñu en danger ñun ñoo ngi nii en danger. fi mu toll ni da ngeen di danaka jot menace de mort chaque jour ba paré fi mu ne tal nañu kër gi yamatu ñu ci menace dañu tal kër gi. est-ce que yéen am ngeen benn suspect. loolu yi mun na sax jàpp seen bopp xale yu ndaw judooguñ di jàng nekk ay élèves lii mun na sax jàpp seen bopp yi. ce que yow am na kenn am na kenn koo xam ne bëgguma sax nga tudd tur mais est-ce que am na ñenn ñoo xam ne suspecté nga leen. waaw am na ñu ma suspecté ñu xam ne bokk nañ si enquête bii te xam naa leen ne dañuy woo sama yaay. mooy ñoom dañu doon menacer sa yaay ci ñiy menacer sa yaay lañu bokk. di menace sama yaay ne sama yaay dañ koy dañ bu bu bu moolaa bàyyiwul muy wax état bi danañ ko rey. léegi sa yaay naka lay dundee loolu. sama yaay dundi dund dund gu metti sama yaay lekkatul naanatul nelawatul man mii gëj naa liggéey sama liggéey ndax toog di ko accompagner comme man rek maa fi nekk góor présentement si wetam. sama yaay lekkatul naanatul nelawatul ndax magum jëmm ko am soixante quinze ans presque jëm kaw nga toog di ko menacé na ko dinaa la rey.

bu facture ndox ñee ñi ngi koy fay lu ñëw ñi ngi koy def à temps à normal mais li def nii c'est du c'est du euh, c'est la lii affaire criminel la ay xale yu am un an deux ans nga taal kër ñu ne si biir xale yaa ngi nii ay asthmatique kenn kaa ngi si dund ak dee ñu yóbbu nañ hôpital dafa asthmatique dugg si biir kër gi yëpp yëpp yàqu courant yàqu na lii li koy defar ay millions la xaalis léegi bëgg naa voilà foofu laa doon jëm bëgg naa yow euh, bu subaa ngeen fexe ngeen def constat ñu xam lan moo yàqu ci kër gi ak ñaata moo ci yàqu bu soobee yàlla képp ku ci man a jàpp ñun dinañu fexe lépp lu ñu man ci suñu kàttan incha allahu rabbi ñu defaraat ba kër gi mel ni mu war a meraat incha allah loolu du doon ñun na ngeen mucc ak jàmm. waaw. ñu ngi jot ay menaces guddi ñu ngi jot ay menaces bëccëg ñun nag suñu yoon newul si Mollah li muy wax. Mm-hmm. suñu yoon newul si Mollah li muy wax li muy wax moom la concerné. mais kër gi waruñ ñëw di ko taal. jamais kër gi Mollah moomu ko. loolu warul am war am. kër gi mboola moomu ko. Mhm. ñu ngi ñuy toog instant yi ay doom yu am un an war a jàngi euh, lundi nu ñuy def di jànge seen yëre yi yàqu nañ. Mhm. fan la ñuy jëlee lu ñu sol. Mhm. fan la ñuy jëlee seen kaya école di jàng léegi seen bagage yooyu yëpp tàkk. fan la ñuy jëlee lu ñu koy lu ñuy dañuy reprendre à zéro. ay yëre jàmbur yi lakk télé yi lakk pour lan pour lan. metti na metti na fa metti yàlla yem instant bi si lëndëm lañ nekk nii. Hmm. seen famille yëpp rawale nañ leen kër lëmm maas yi fanaan nii dëkkandoo yëpp nag ñëpp génn nañ ñu ngi leen sant gërëm dëkkandoo yi ñu dëkkal yëpp a génn. ku si nekk jël nga sa paan sa siwo ñëw te fay kër gi. avant sapeur di ñëw fay nañ ko. ndeysaan ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax bu dee ñoom ñu ngi may dégg dëkkandoo yëpp ba ba léegi maa ngi jot ay appels yu jóge Amérique fu nekk ñu ngi koy jóge di ma woo di ma masawu. ndeysaan maa ngi lay ñu ngi leen di massaw bu baax baax bu soobee yàlla incha allahu rabbi comme ni ma la ko waxee ñu ne dinañ fa yónnee suba ñu ñëw déjà ngeen def constat ñu xam lan moo xew foofu ci kër gi ak lan la ñu leen mën a jàppale pour delloowaat c'est très important surtout ça surtout ça ah. ngeen wo press bi ñu woo presse bi incha allah ñu yëgal àdduna bi yépp prendre le monde entier en témoin parce que Mola Morgan wala Ousmane wala Ablaye wala Mademba li def ñoom la concerné léegi ku nekk góoru yàlla da ngay dem ca ka nga xam ne la def nga jëflante koog moom waaye di dem ci ay nit yu vulnérable ay jigéen yu màgget wala ay paa di attaqué ay kër wala ay xale di taal ay kër pourtant ñoom seen njaboot ñu ngi biti réew ndax man waxoon naa leen ko nee naa leen sama njaboot ku laal ma jëflante koog sa njaboot biti réew œil pour œil dent pour mais bu ci yàlla àndee incha allahu rabbi suba dinañu dellu siwaat encore xool seen situation maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la waat nag di la massaw ne la duñu leen bàyyi duñu leen seetaan incha allahu rabbi ndax yéen doo leen dara ci lii da ngeen nekk ay nit yu innocent yoo xam ne seytaane rek ay nit yu bon ñoo ñemewul maanaam mënuñu assumer seeni ay responsabilité ñuy dem di attaquer ay famille yu ay famille yu vulnérable waaye bu dee Mollah Morgan rek dina continuer combat bi ba fa mu neex yem ga sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. loolu foofu la affaire bi nekk waaw dégg naa fi bërki démb benn waay bu ne xaw pour naa Canada sama doom yi toujours ñu dajeeg moom. bu mu ko tax tiit nag ndax duñ ko saaga duñ ko wax dara mu ñu xaw xaw morgan la tudd xaw morgan ah lu mu tudd mu ni ay loolu ay tur loolu ay nëbbatul ah, ah? tur xaw ma la la am déet waaye daal ñee na sama mbo mbokkam laa du dëgg de xaw ma nag sant na ñasam déet mais bokk ñuy ñas de man sama ñas bu ñu bu ñëpp xam la alaaji Abdoulaye ñas doom ji mu njëkk a am mooy xalifa ñas moo ma jur léegi nag ku xalifa ñas jurul ku ku ku alaaji Abdoulaye ñas jurul sa baay jurul sa maam jurul maam mi kooka bokkuñ dara lu tax ndax alaaji Abdoulaye bokk la kenn ndey bokk la kenn baay kepp la woon ku génnewul sa baay mbaa sa maam mbaa sa maamaat génnewul ci alaaji Abdoulaye mënoo fexe ba bokk ak man am na fa nag njaboo ña ñu sant ñas ñoo xam ne dañoo ñëw làqu ne léegi ñas lañ sant ni ay xaw ma moomeef lañ xaw ma léeg-léeg gars yi bu ñu bëggee weccet ci lañ daan jaay même seen jigéen yi sax bàyyi ñas mi moo ko aay moo ko tere Baye Niass ñii lu ko noonu moom muy dama ci am dara dama koy jaay léegi am ci xaalis waaye na sant Baye Niass aussi damaa am rakk joo xam ne rakkowut ma te bàyyam fonkoon ma lool muy Baye Niass maa mujj ci làmmiñam bi ma tuddee waxaatul ba bis ni tey fonk ma lool te moom gisuma fu muy waxee waxi baayam ma wax waxi baayam waxal sa waxi bàyyi sa bàyyi fii waxi caga ji dow oh, bàyyi ñas ku ko am doy na mën nga ciy wax bés bu ne ba ba ngay dee même ba doon dund téeméeri at te duñ ci doyal waaw xanaa bàyyi ñas dafee baaxul dara ñoo laaj ma ndax ba na fi dara am déet mën naa xëy di la wax sa baay di gont di la ko wax ba ba ngay dee te du jeex ku ko ëpp yàlla bind ko ku ko gën yàlla bind ko ku ko gën a rafet yàlla bind ko ku ko ëpp xam-xam yàlla bind ko ku gën a nekk nit yàlla yàlla bind ko yi nga doo nga ne sa taalibe du dëgg du sa taalibe taw xam nga ne du sa taalibe kooku mi ngi cosaanee dëkk mu ñëw munde maamam bi jur baayam taalibe tafsir jibril konte yi ca julli xaar di muqaddamul xalifa ñas moom moo daan dem de di fa duggee xalwa ndax moom dañ ko sant xalwaay ndox mu am fa ay taalibe ñu ngi dëkk ñetti dëkk yii munde ak dëkk bi ci sës euh, kii ñoo euh, joor euh, ak jam ñaajo bokkul ak paroissement jam ñaaju jam ñaaju géej hmm? maanaam ñoom dañuy gàmmu si dugg ci gaal yi ñii dem ñaseen lew na ñii dem Medina Baye te lépp di alaaji Abdoulaye Niass mais nag da ngaa jaawale koñ yi koñ yu bokkut déedéet waaye man daal bu dee 600 million nga nga nga bëgg waxal waxal waxi Baye Niass ma jox la 600 millions te nga bàyyi wax yu ñaaw yi ngay wax jëmale ko ci ñoo xam ne jote ak ñoom dara wala nga leen def ay liste di ko jox as ndaw mu di leen saaga parce que bu ñu la porté plainte ñu jàppale de te kenn ku sant Niass du jóg. yow danga waroon bala ngaa wax nga wax a Collé Sow kooku nga waroon a waxat waaw bo Collé Sow nga waroon a waxat. waaw Kolle Sow sa yaay moo la mën a wax bàyyi ña sama ma tegoon ak yow mii bi nga juddee gannaaw bàyyi daf laa bootee Cees indi la ba man si man ci man la dal ci sama kër ñetti weer waxtaanal ak sa yaay door a ñëw ci man du tey nga door a commencé nag at yële passé boobu maa ngi nekk ministre nga dégg ma xaw ma Iran xaw ma ban dëkk laa demoon mission nga ne yow sañ nga maa tere dugg Medina Baye gis yow maa la ëppale Medina Baye ci kaw ñaari yëf rek waxuma sax ñaari yëf sama yaay fa la tëdd yaayam fa la tëdd rakkam fa la tëdd te maa leen fa yóbbu xoolal ndax yow am nga lu la may nga ne ndax man du ma siyaare sama yaay wala yaayam déedéet utam xaalis mi jaru ko bul soxloolu ngay chantage yi sàll man Ahmed Khalifa ñees maa ngi nii goo sama kanam yi nawle ñëwal ñu wax Baye Niass ma jox la 600 millions fii ma toog léegi laa la koy jox tout de ndax banque bu ma bind kayitu suukar hmm. neel fay leen milliards ñu fay milliards te banque yi xam nañ ko te mosuma leen yoreel bor du ma ko yor hmm. réew mi dafa laaj ñu calibré waat ko dafa laaj ñu calibré at ko waaye mag mu toll ni man am juróom-ñaar fukki ak juróom-ñaar nekk sa kër dooy génn 3 mois 6 mois 8 mois kenn gisu la fenn demoo ci wenn xew demoo fenn waaw xanaa ndaw soo suñuy wax sax ku ñeenti gendarme di di di ko di garde ku ñeenti di garde kooku neexut a doxaani de ah déet boo foofu rek laa yem dama ne ñeenti gendarme caga bu ñuy garde neexut a doxaan hmm, ndax doo am fit waaye est-ce que gendarme yi sax nañ la bàyyi nga dugg foofu la problème bi ne xam nga itam si dafa am ñoo xam ne dañoo xeeb sénégalais yi di wax loo xam ne xel du ko jëli c'est quoi ça waaw dëgg la loolu indiwuñu fi léegi nag ñu door a jàll ndax nag lii may wax ni muqaddima la muqaddima muqaddima la mooy waxi jiital ndax du toujours laay wax boo xam ne boo la waxee boo waxee ren bala ngaa wax di déwén boo waxee loo fàtte fàttewu ma kay man nag ma di ko wax ndax fi ma toll ku fi ne loo waxati ndénkaane la maa ngi koy seedaloo yàlla mosumaa njaaloo benn bés ca ba ma xalifa ñas juree ba bés ni tey te bind na ko itam bind na ko libnin faatumin bind na ko waaw waaw nee na sam kii sama doom la ñaan naa ko yàlla nangul na ko du njaaloo am na loo xam ne sax du tey boobu ma maa ngi door a am ñaar fukki at ma dajeeg ay kii ca France ñuy wax buy wax Afrique du bëggante ñu dem seen kër bi may dugg ci kër gi xam naa ko mais am na ci ko xam ne bi mu summee ko bu summee ko man àndatuma ak sama sago ba dañ ma wax ne pompier moo ma ko jëlee yóbbu ma ma door a nekkaat nit man mën nañoo teg alxuraan mosuma njaaloo ba mu juddoo ba bés ni tey ju ju ju ma xam jigéen ju ma lew juurale ma ko sama tër kër sama benn doom mos a jullee ci àll duggee ci àll juddee ci àll fii lañ judd loolu nag yëpp ci muqaddama yi la bokk léegi nag yow alaaji Malick ci sama waa ju baax ji mën na maa dugal ci lu ne te bu ma dugalee ci yow ma dugg ci yow man kenn moomu ma kenn corrompre ma dunduma alalu kenn sàccuma marché aw ma salaire aw lenn su fekkee ne l'homme le plus libre du Sénégal plus libre que moi qui waaye nag dama am problème mooy avoir un million qui ne veut pas régir. Vous voyez un million mais qui ne veut pas régir? pourquoi parce qu'il ne veut pas faire peur à la gazelle hein? en tout cas à l'antilope Quel que soit l'antilope il faut régir. Senghor dafa le le lion rouge a régi le lion gàpp gàpp doit régir ah ah kay loolu la def leen ko baax na bañul tàccu ci biir la hmm? le lion rouge a rigi. le loi le lion noir doit régir waaye boo nee bu mbëri jiiree gaa yi tiit ah kon de duñ daal kay moom day fàtt rek la la la kii waxoon ndaw sa doon woy sengoor yande kodd mu ne gaynde buggul mbuum yàpp lay dunde ma ne déedéet waaw gaynde la wax de waaw nga waaw waaw dëgg déedéet dama ko jaarelu bukki bukki mooy moon ci séeréer moon boo nee dëgg bu ñax njoos moon mooy mu ne fa bukkee njoosante ba ñuy njoosante waaw foofu waaye tam boo bëggee dem fi gaynde yi njoosante ah bëgg nañ sa sa yii yii ñu ne lan la ñu ne gaynde gi la yëngul yëngul ñu ànd ak yow ba tey di ëllëg yoraluñ kenn bor yoraluñ kenn bor ragaluñ kaso ba kaso jotee dañoo da maag si di lamin dañoo def suñu sajaar suñu kii indi

Ah. ah waaw bien sûr kii kay def na waat ji jeex na waaw kay dama bëgg a wax ne maali gàkku ku baax nga ku set nga ku am plus intégri intégrité que quiconque parce que nguur yi bu ci tegu man Barthélemy Diaz nee naa leen man tubaab laa namp

te man constitution du Sénégal Je tax ci jëlbeen je commencé euh, émission bi man la Barthélémy amul solo je bëgg ak constitution du Sénégal est gestu parce que nous dëkk ci république bëgg ditel sa si droit di ditel sa ngay tek so catholique sa le droit nga sa armoire bible ngay tek nous sommes ak bible euh, constitution du Sénégal. donc La constitution du Sénégal. ma paraphraser li constitution du Sénégal marche parce que da ngay conformer à la constitution et que constitution si nga par référendum 2016 le droit Macky Sall possibilité de mu pour un troisième mandat la réforme constitutionnelle qui a été introduite par le référendum de 2016 n'a pas encore tranché la question du champ d'application. Euh, nous avons saisi le gouvernement d'une question écrite en tant que député pour savoir si l'article 27 était applicable au mandat en cours ou pas. Et la réponse du gouvernement, par le biais de son ministre de la justice, c'est qu'il ne revient pas au gouvernement d'interpréter la Constitution. Et donc, rien n'empêcherait le président Macky Sall, s'il parvenait à décrocher ce second mandat, de pouvoir briguer un troisième mandat en 2024 en considérant que l'article 27 n'était pas applicable à son premier mandat puisqu'il ne pouvait pas rétroagir. La constitution du Sénégal, à l'heure où je parle, elle parle de Nyari Mandat ou la constitution du Sénégal ne parle pas de mandat de Durom Donc le mandat de Macky Sall 2012 2019 constitution du Sénégal de quoi considérer. Non non non non non, du considérer. Tu parles français, tu le comprends, je parle français, je le comprends. La constitution du Sénégal dit que grave hein. La constitution du Sénégal dit que tout Sénégalais qui devient président du Sénégal a droit à deux mandats de 5 ans. Macky Sall le mandat de cinq ans. Donc Macky Sall, ces deux mandats de 5 ans, selon la constitution du Sénégal, c'est le mandat 2019-2024. 2024. Il est modeste, il ne fait pas beaucoup de bruit, mais il est efficace. Et c'est peut-être cela le plus important.